الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom suñu boroom moomu nga xam ni mooy ki peeg lépp ci xam-xamam ba suñu boroom boobu nga xam ni mooy ku lewet ku dul gaaw a dal ci ay jaamam boroom yërmaande gu matale lépp ki rafetal jëm ci mboole mi jaamam amul benn ci ay jaamam lu dul jox na ko àq ya nga xam ne yeyoo na ko ci ay ndigalam la taxawee asamaan ak suuf benn jooyoo amu ca naka noonu it mboolem ay jaamam seen mbir du mën a baax du mën a jub lu dul dañoo dëppoo ak la nga xam ne mooy seen ndigali boroom boroom boobu mooy wëlbati lu ko neex ñu nii woon doole bu ko neexee kàttanal leen boroom kàttan ya bu ko neexee néewal leen doole borom boobu ay xéewalam màgg na ci ñun ay xettileem it bari na ci ñun ñi ngi koy sant di ko gërëm ca di nangu mboolem dogal yim dogal ci ñun di seede na moom dong yeyoo ñu koy jaamu amul kenn ko mbokkaale ngóoram gi di seede na sunu yonent bu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab jaamam la woon boo xam ni moom la yónni woon ci ñun muy ñuy jàngal nu ñuy jaamoo suñu boroom suñu boroom defoon ko muy ab jirim jirim boo xam ne mosoon na lan mooy métitu ñàkk ay way jur waaye itamit noonu la ko yàlla tàggate woon mu nekkoon ko am yërmande ca jigéen ñi ak xale ya amoon yërmande lool ca soxna ya nga xam ne dañ leen a bàyyee ay jirim yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy nangooro yi ba ila yawmi diin ñi ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla sax ci loolu ba dee fekk leen ci ca it nga la way nañ jàng diine yàlla ji gannaaw bañ ko jàngee ñu jël léppam bañ caa teqalee daraam suñu borom yàlla subhanahu wa taala amul lenn loo xam ni jaam bi dana ko aajowoo ci kaw suuf lu dul diineem leeral na ko ana naka la koy jaare ba am ca ngërëmal boroomam am ca it loo xam ne dana ko jëriñ àdduna ak alaxira suñu boroom mu ne maa wàcc téere bi di alquran muy leeral ñeel bépp mbir nekk jub goo xam ni jullit ñi dañ caa war a jaar ca heure boo jubee ci njubug yàlla ñaari rekk moo la cay xaar ba jëkk ba mooy rahma wa bushra moo tax borom bi ne rahmatan wa bushra lil muslimin amul kenn kuy dëppoog ndigalu yàlla ak ngërëmam lu dul yàlla defal la yërmaane ci say mbir ca mujj góolum yàgg-yàgg yàlla defal la ca mbikk mbokk lii mooy suñu téere boroom bu ñu delloo ci suñu sunna yonente sallallahu alayhi wa sallam kenn ci sahaabaam di abu zarril xifaari nee na yonente yàlla bi day faatuwul lu dul ni waxuma jàngal nañu suñu diine waaye amul benn picc bu mas a romb naaw tiim ñu lu dul jàngal nañu ca la nga xamee ni ni mooy ay xam-xam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ki nga xam ne moo jàngal jullit ñi lépp ba jàngal leen naka la ñuy àndee ak seeni soxna naka la ñuy demee douche naka la ñuy defee lu mën a doon sallallahu alayhi wa sallam looloo tax ba mbokk jullit bokk na suñu diine ji loo xam ne leeral na ko bàyyiloo ci nit ñi xel ca loolu may nar a nekk suñu jubluwaayu xutba tey mooy àq yi nga xam ne jullit ñi yoroon nañ ko ña nga xam ne ñooy jirim yi mbokk jirim mooy yatim yatim mooy kan mooy koo xam ne waajuram faatu na ca majeuragul tant que majeuragul rek yatim lañ koy tudde ku mel noonu nag mbokk jullit bu ñu delloo ci alquran dañuy fekk ñaar fukki aaya ak ñett yoo xam ne suñu boroom ma nga cay tudd imma ñu def njëkk jëm ca yatim ya muy jirim ya wala imma di tere ñuy ñaawal jëm ca jirim yooye loole itamit gis nañu ne bu ñu delloo ci xadiisu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam dañu fay fekk lu ëpp loolu mbokk suñu borom bokk na lim ñuy wax mooy yow yonent yàlla bi day fekkoon naa la nga doon ab jiriñ man yàlla ma làq la boole la ak ñoo xam ne am nañ ci yow yërmaande gu raw ga ñu am ci seeni doom yonent boobu it la yàlla digal ne ko nga la waay ab jirim bu ko not mukk ab jirim bu ko delloo gannaaw mukk lii nekk benn dalal xel mooy bépp ndaw boo xam ne say waajur dañ laa jiitu nga la waay dalalal sa xel ci ne yàlla tànnal la la tànnal na la lam tànnaloon ab yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bul nekk di xool ñu am ay baay waaye xoolal yàlla lam la tànnal mooy lii la tànnaloon ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon jirim kam yow waaye yow mi nga xam ne it yow la yàlla nattoo nga yor ab jirim na doon yaa ko yor ci sa kër wala yaa jóg dem di taxawu jirim même boo dëkkuwul ak moom xamal ne yaa ngi taxawu koo xam ne ma ngay dund dundug yonente ba sallallahu alayhi wa sallam ca mooy yàlla da koo tànnoon mu nekk ab jirim avant mu koy teg responsabilité yu mag yi nga xam ne nii moom la ko teg mbokk bokk na ci mandargay jullit bu baax mooy mu am yërmande ci ay jirim bokk na ci mandargay ku nar a alko muy muy suufantal ab jirim suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ndax dookaay ma wax li kii gëmul ni bi si penc dana taxaw ñu fay ko mooy képp koo xam ne dafay toroxal ab jirim suñu borom yàlla subhanahu wa taala di ŋàññ yéeféer ya ne bal yéen de yéen yéene ñi nga xam ne du ngeen teral ab jirim kon waxuma toroxal ab jirim danger nga ca waaye ñàkk a teral ab jirimit loolee mbokk da ngay gis ne yàlla subhanahu wa taala gërëmu ko suñu borom ñoŋal la nga xam ne nii mooy ab jirim bu yàlla dogal baayam dem bàyyee ko alal suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne alal jooju buñ ko jegee lu dul nëm gën a rafete suñu borom yàlla ne ñii lekk alali jirim dey lekkuñu lu dul sawara ci seen biir yi ca sawara bu mag bu ñuy wax sair moo leen di xaar loolee tiitloo woon sahaaba ya lool bañ dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj ko ma ñun nu ñuy def ak alali jirim yi suñu borom nag wàcce ne jirim yooyu day su dee da ngeen a jaxasoo ak ñoom it yàlla def na leen ñuy seeni doomi ndey yàlla xam ne kay yàq ak ka nga xam ne du yàq du yàqkat ca loolu mooy lan ki nga xam ne dafa nekk ak jirim mu yor alam alalam dara nekkul ci ñu jël ci alalu jirim ji boole ak dépense bi ñun ñëpp ñu bokk lekk tant que yàq amu ca loolee mooy la nga xam ne suñu borom moom lay wax ci loolu ca la ñuy wax ne bépp jirim boo xam ne bàyyam bàyyi na ko alal bu leen jël alal ja mukk teg ci loxoom bàyyi leen ba majeur su majeuree ngeen jikko koo nattu teste ko ndax mën na gérer alal ba pare su ngeen yégee ne na am ngeen doog a jël alal joojee doo ko delloo ay yéen mbokk julit xamal ne war nga góor góorlu sa kemtalal kattan fexe sa alal ji la yàlla wërsëgal ay jirim lekk ci suñu borom yàlla subhanahu wa taala mi ngi tagg jaam yi koy gën a jege yowmal qiyaam al muqarrabin nee na wa yutcimuuna taama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira loolee kon ña nga xam ne ñooy gën a jege yàlla yowm alqiyaam suñu borom nee na dañ daan jël seen alal di ca leel miskin di ca leel la nga xam ne mooy ay jirim di ca leel ay prisonnier gannaaw loolu suñu borom lënkale ne àq bi nga xam ne dañ ko yorul jirim yi ca àq bi nga xam ne dañ ko ko yoral moom jalla wa ala àq bi ñu yoral suñuy waajur borom bi ne ngal la waay wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi zil qurba wal yatama jaamu leen yàlla bu leen ko bokkaaleeg dara def njëkk ci way jur yi waaye nag ak jegañaale yi ak jirim yi nekk ak yéen mbokk taxawu jirim commencé wul ci diin lislaam xatta diine yu jëkk ya suñu borom yàlla mi ngi ñuy nettali wa iz axazna mithaqa bani israil la taabuduuna illa allah illa allah wa bilwalidayni ihsaana wa zil qurba wal yataama borom bi jëloon na kóllëre ci mboolem téere yam wàcce woon ci bani israil ca ne ngalla waay bu leen jaamu ku dul yàlla def leen njëkk ci seen waajur ak jegeñaale yi te def ko njëkk ci jirim yi gis nga foofu it suñu borom mi ngi lënkalee àq biñ ko yoral ak àq bi nga xam ne dañ koo yoral jirim yi ay yow mbokk julit suñu yenente alayhi salaatu wassalaam mi ngi ñuy ñaax ci benn saar boo xam ne julit bu man war na fexe àjjuma ju ne mu koy jàng muy suratul kahfi mu nettali ñu ci ay xissa yu bëri bokk na ci xissa yooyee benn jaamam bu baax muy xadir mu boole koog yonent bu mag ci yonent yi muy Muusa suñu borom teete leen ñu yéeg gaal wàcc traversé ay dëkk ba jëm lan mooy jubluwaay ba dem ci benn dëkk boo xam ne am na góor gu baax bu fa nekkoon amoon alal ju mu suufa bu mu suuloon ca la nga xam ne mooy suufu lam tàppaate woon wëri la ko këram ngiree ne balaa màbb ay doomam màgg ba mën koo jël yàlla dogal loolee di waaj a màbb mu yebal xadir na ko demal redressé ko xadir bi mu ñëwee lan la wax Muusa wa ama aljidaaru fa kaana li gulaamayni yatimayni fi lmadina wa kaana taxtahu kanzun lahuma fa araada wa kaana abuhuma saliha fa araada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastaxrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma faaltuhu an amri xadir ne ay Muusa gis nga miir bii ma redressé day dafa am ay jirim yu nekk ci dëkk bi seen bàyyi ko baax la woon waaye loolu di bëgg a màbb moo tax yàlla yebal ma ngiree ma daal di koy jubbanti defuma ko ngir seen mbir loolu it mbokk lu mu lay jàngal ay yow way jur heure boo bëggee heure boo wonee gannaaw suñu borom yàlla taxawu sa njaboot ngallaawaay sa mbokk ma la woon gannaaw taxawu ko ci njabootam amul kenn koo xam ne dana taxawu ab jirim lu dul yàlla taxawu njabootam gannaawam loolee mbokk ñu góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax. nañu xam ne suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam bu ñu delloo ci sunnaam mi ngi am benn xadis boo xam ne ni Sahal ibn Saad moo ñu koy nettali mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na. ana wa kaafilul yatim fi ljanna ka hakaza wa ashaara bisababati walwusta wa faraja baynahuma shay'a rawahu lbuxaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ne koo xam ne yaa ngi taxaw ak jirim day maag yow nii la ñuy mel ci biir aljanna mu daa di tegale la nga xam ne mooy baaraam bi ngay joxañe ak baaraam bu ci digg ba ne nii la ñuy àndee yowm alqiyaama loolu moo tax ba borom xam-xam yi dañ naan hadis bii day képp koo xam ne dégg na ko war ngaa taxaw sa kéemtaleel kattan xool ma man nan lay mën a fexe ba bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxawu ab jirim mbokku xutba bi la nga xam ne moo ñu ci gën a yóbbu dafa am benn mbooloo bu ñuy tuddee taxawu jirim nga xam ne ña ko jiite ay ndaw la ñuy jóge fii ci Sénégal am na ñu nekk Italie am ñu nekk Espagne ak France ak feneen. ñoo xam ne seen jubluwaay mooy néew doole gi jirim yi nekk Sénégal lu ñuy fexe bi dimbali leen ca ñoom ñoo ñu santoon ñu defal leen benn waxtaan ñu ne nag nañ ko def ab xutba ngir njëriñ bi gën a tasaaroo gën a yaatu ca loolu it mbokk mi ngi noonu am na fi ay association yoo xam ne soo jëloon sa sa sa xaalis jox leen ngiree da ngaa bëgg a taxawu jirim loolee dañ la ko fa defal gannaaw loolu it tamit xoolal ci say mbokk xoolal say dëkkandoo xoolal say jegeñaale képp koo xam ne yëg nga ne kat fii ab jirim ma nga fa ngal la way nga góorgóorlu taxawu ko loolee ca dara de gën a kawe la bokk ndax li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax waxul ne kuy taxawu jirim day dem aljanna ba ko waxoon rek loolee doy na waaye dana maag moom ñooy lënkaloo ci aljanna te yéen ñépp sikk sàkk wu leen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngay dëkke firdawsil aala ca fa nga xam ne fa la yonent yi màgg yi di dëkke yal na yàlla def ñu ko ñu nekk ay dëkkandoom yowmal qiyaama loolu nag bokk na la la koy may mbokk julit mooy la nga xamee ni nii mooy taxawu la nga xam ne muy ab jirim mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañu ñaax ci ni ki nga xam ne daa bëgg ay aajoom di faju ki nga xam ne daa bëgg xolam di fiix xolam di dal ngal la way nay fexe di taxawu la nga xam ne muy jirim rasul sallallahu alayhi wa sallam loolu lay wax ne ida aratta an tudrika xaajatak wa yaliina qalbuk farxamil yatim heure boo bëggee say aajo di faju nga bëgg sa xol di di dal nga la way del bari lool di teral la nga xam ne mooy ab yatim yonent bi alayhi salaam wax ñu it ne kenn ci yéen day su bëggee am yoolu dëkke koor boo xam ne ni du dog dëkke taxaw guddi boo xam ne nii du dog dëkke jihaad boo xam ne nii du dog nee na ngallwaay ku mel noonu nay taxaw la nga xam ne nii mooy yaay joo xam ne dafa yor ay ay ay ay jirim ca loolu itamit moo tax ba da ngay gis ne sahabatul kiram ak seen jihaad bu bari ba amul kenn koo xam ne nii ca jigéen ña borom këram daana faatu lu dul nga gis ne sahaaba yi dañ ko daan jëkkante ndax ngir bëgg dugg ci ay sëy déedéet waaye ngir rek bëgg a féetewoo jirim ya taxawu leen ngir am ca tuyaaba ju tol noonu keroog ba abu salama faatoo soxnaam su ummu salama rasul sallallahu alayhi wa sallam ñëw ne da koo bëgg a denc pour soxna mu ne bokk na ci lam ko lay ay yu mi yàlla yónni teg maa bàyyi rek ndax man yàlla daf maa nattoo njaboot mu ne ko voilà njaboot googu nag sama njaboot lañu yonente bi alayhi salaam uuf leen nu raw na leen seen bàyyi uufe woon lii kon mbokk ku nekk ci ñun war naa góorgóorlu kemtalal kattam naka la mën a xoolee bépp yaay boo xam ne ah bàyyi ba dem na woon ko gannaaw bàyyee ko ak njaboot gu sew nan ngay taxawoo yaay jooje loolee ca tuyaaba ya gën a màgg la nekk ku nekk war cee ñun bàyyi ci xel gannaaw ba it mbokk taxawu jirim firiwul na jox ko mu lekk rek wala sànni koo dara déedéet taxawu ba mooy ñu daal di koy jege tàggat ko won ko ne yow ku tedd nga ku yàlla teral nga ndax yàllaa ngi la jaarale fa nga xamee ne nii fa la jaarale nit ñu baax ña soutenir ko ci wàllu xelam daal di koy dalal ba la nga xamee ne nii borom bàyyi am nañ ko loolee du du ñàkk loolee moo tax a rasul sallallahu alayhi wasallam daan ñu ñaax ñuy raay bopp jirim ay jegeel ko taf ko sa kaw di raay boppam ba mu yëg ne affection bi nga xam ne xale yi am bàyyi am nañ ko ah man kat ñàkkuma ko ñàkk naa benn bàyyi waaye yàlla wërsëgal na ma téeméeri bàyyi ci jullit ñi loolee ku nekk ci ñun war naa góorgóorlu mbokk jullit jéem a xool loolu kémtelal kattanam nan la cay daboo ngërëmal yàlla bu ñu xoolee mbokk suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu yàlla def na ko jirim mi ngi nekk ci biiru baayam waaye tey boo doon lim ña nga xam ne ñoo taxaw place am gannaaw ba tasaari diinim ji danga cay fekk ñi ëpp ñañ cay tudd xamuñu seeni baay xoolal ko mel ni imaam Shafii rahimahullah ba baayam di faatu ñaari at la am imaamu Ahmad ibnu Hambal ba mu nekkee ci biiru yaayam la faatu ka nga xamee ni nii mooy imaamu Malik ci seen ndaw ak ñëpp la la ñu faatu nga dem ki nga xam ne Zubayru ibnu Awaam ki yonent bi alayhi salaam doon wax ne bépp yonent day am na jëwriñ ñu koy tudde ab liet naa mu ne man nag sama jëwriñ mooy Zubayru ibnu Awaam kookee xamul baayam yaayam asma bint abubakar moo ko yar lii lépp mbokk kon yatim yooyu dañ leen war a may personnalité jege leen xamal leen la nga xam ne nii moom la ñu war a mën a taxawee ki nga xam ne mooy al buxaari yi buñ na laa buxaari mooy képp koy solo xadis ci diini lislaam buxaari mooy imaamam buxaari mooy cheikham umma bi yépp nangul ko loolu téeréem gën a wér ci téeréem yi xamul baayam yaayam mooy ka nga xam ne moo ko yar teg ko ca la nga xamee ni nii mooy yarul islaam mu am personnalité bu tax mu teg tànkam ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jëriñ tey umma bi loolu nga xam ne moom la ko jëriñ tey loolee kon mbokk mi ngi noonu heure boo xamee ni nii dañuy wax ay jirim ngalawaay bul jàpp ne dama jublu góor waaye góor ak jigéen na ci yem su may wax taxawu jirim jubluwuma ca góor ñi góor ak jigéen ñoo ca yem xool leen mbokk jirim ba nga xamee ne nii bokk na jirim yi gën a màgg yi ñëw ci kaw suuf muy Mariama Mariama bintu Imran baayam ba nekkoon ko baax di Imran keroog ba nga xamee ne nii yaayam ëmm na ko yaay ju baax jooju tuddoon Xanna la yàlla dogal jël Imran mu faatu Xanna boobu daa ji ne ay yàlla maa ngi mébét sama doom jiidey bokk ci imaam yi taxawu la nga xam ne mooy sa jàkka ji ba nga xamee ni jur na ko yàlla dogal muy jigéen waaye kooku mu bàyyi woon ak bàyyam ba nam baaxee la nga xamee ne mooy imaam yi nekkoon ca jamono boobee mën nga leen a tudd ay labbe dañoo ànd ak Zakariya ku nekk na moom mooy yar Mariama ku nekk na man maay féetewoo Mariama ba sunu borom nee na dañ ko mujj loterie dañoo xëccoo xëccoo ba mujj ko loterie. ba ñu loterie ca la Zakaria gañe doog a jël Mariama yóbbu ko këram loolee ba ñu ko yàlla nettali benn misaal la ñuy jox mooy bépp jirim góor la ak jigéen ngal la waay bokkul ci profito bokkul ci sa kéemtalal kattan ba mën a bokk ca ka koy féetewoo doon koo xam ne nii moom moo koy taxaw lii mbokk kon benn mbir la boo xam ni ñi ngi koy dénk suñu bopp ca di leen ko dénk yal na yàlla yombalal ñu ñu bokk ci ñiy taxawu ay jirim yal nañu yàlla boole ca ñay dëkk ak yonent bi alayhi salaam firdawsil aala mboolem ko faatu ci ñun bàyyi ay jirim yal na yàlla wuutu ko ci jirim yooyee yal na yàlla teg leen ala siraatil mustaqim barkal leen ba ñu am njëriñ bu toll ne na jirim bu mag ba amoon muy sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam bépp jigéen bu yàlla subhanahu wa taala dogal jëkkëram bàyyi ko ay jirim yal na yàlla boole ko ñu ko taxaw taxaw bu raw ba ko jëkkëram doon taxaw yal na yàlla def ñu aafiye fi dunia wal axira barkeelal ñu barkeelal ñu suñu njaboot def leen ñuy sedd xol ci ñun adduna sedd xol ci ñun alaxira mi ngi noonu allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar rabbana la tuzig qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahuma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين